dal leen ak jàmm ci xibaar yéen yi nga xam ne nag moom la xëyandoo ay ñun fu ñu jëm yàlla suñu borom rek moo sañ inna lillahi wa inna ilayhi rajiun l'observateur di ñu xamal ne moom mi Amar kay génn na àdduna Libération di ñu xamal ne gar mi dëgg dem na moom Ahmed Amar mi nga xam ne moo jiite woon fi nga xam ne nag moo di NMA Sandor moom mi nga xam ne daal lépp loo xam ne nag jëm na xam ne nag li nga xam ne daal moom la ñuy laajte mooy Ousmane Tanor Dieng ki nga xam ne nag moo koy wuutu yéenekaay bi dañu xamal ne coow li nga xam ne daal gannaaw faatu ki nga xam ne nag moo di Ousmane Tanor Dieng jamono ji nag la ñuy sàkk moo di ak a laajte mooy Ousmane Tanor Dieng moomee kan moo koy wuutu Walf Fadjri di ñu xamal ne boo moytuwul kay parti bi nga xam ne nag moo di PS ci tas la jëm déet waay yéene kaay bi duñu xamale day tas kay boo moytuwul ndaxte li ko waral moo di gannaaw bi nga xam ne Ousmane Tanor Dieng génn na àdduna ñuy laajte kan mooy wuutu ki nga xam ne nag moo muy Ousmane Tanor Dieng yéene kaay bi duñu xamal ne Aminata Mbengue Ndiaye mi nga xam ne daal moom lañ ci doon yëkkati tur moom kay bëri na ñoo xam ne àndu ñoo moom waaw maam daal coow la daal tàbbali na fi nga xam ne nag moo di ci parti socialiste Mamar Diongue di ko xam ne xam-xam màcc na lool jëm ci wàllu politique di ñu xamal ñu daal di taxaw li nga xam ne ne nag moo di comité central ba waaye tamit daal di taxaw daal di taxaw ñu daal di woote nag li nga xam ne nag moo di congrès daal di war a xool ki xam ne nag mooy remplacer laa wax nañ ñu respecté ku koy wutoo ku ne mel ñu joxaat li ñu moom te jox ñu respect nañu bàyyi ba dëj bi weesu laa la wax ñu fàtte yi yëpp bu boobaa leneen lu ñuy def ñu dog di ko def moom lay sàkku kay moom Abdoulaye Wilane direct info mel ni ku naan ko wax joojee sëfu ma ndax Ousmane Tanor Dieng coow lu am na ci digganteem ak daal nam na ñoo xam ne bëri na ñoo xam ne ànduñ ca waaye tamit gannaaw daal coow li nga xam ne daal amoon na notam li nga xam ne daal tegoon nañ ko ci loxo ak xale ba yéeni bi dañu xamal ne kaay mbir mu garaaw moo xewoon gannaaw bi oto njiitu réew mi tàkkee lu garaaw li xew ci Sénégal mbir la moo xam ne daal maanaam daal lu gàtt gàtt ñi nga xam ne daal dañuy ñu leen di génne di yóbbu réew maanaam daal fukki million da nga ko bi dañu xam ne loolee kay dafay tekki ne kilifa yi nga xamal ne ak mooy askan wi nga xam ne nag ñoo dëkkee ca Koutal ca Kaolack yéen i bi dañu xamal ne ñoom kay ñaari weer gi nii ay jafe-jafe la ñuy jànkonteel maanaam moom Sadio kay démb kay dañu koo naroon a dëbb bam nooy nepp ndax gannaaw étudiants yi nga xam ne nag ñoo nekkee foofee rajax-rajax yi nga xam ne daal moom lañu nekkee woon buuxante bu metti goo sànnante xeex sax jotoon naa am ngir gis ki nga xam ne nag moo di Sadio Mané Sadio di xam le ne man daal fii dama fee ñëw ñëwoon rek ngir encourager ñi nga xam ne nag ñoo di suñu mbokk yi di jaay Sadio naroon naa saf moom ndax dañu koo rawale moom Sadio Mané